bon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu man la El Hadji Mamadou Guèye di communicateur traditionnel bu département de Tivaouane bu APR en même temps yàlla dogal maa nekk président commission religieuse et culturelle bu de conseil départemental fii ci Tivaouane et département de Tivaouane. Euh, El kañ ga ñëw ci APR. APR kañ laa ñëw ci APR mbaa kañ la APR ñëw ci man. ndax <clears throat> bi may ànd ak Macky yàlla dogal na boobu APR xewagul woon yaakaar naa ni Macky bi mu jógee rek laa jóg ànd ak moom bi may wootee fii tamit di ànd ak président Macky Sall amul benn nit boo xam ne taxaw nga ci Tivaouane boo xamante ni gis naa ni kee kuy ànd ak Macky yàlla mi nga xamante ne mooy dogal tey boole moo ma boole woon ak président Macky Sall mu jëf ak man ngor jëf ak man teraanga jëf ak man sutura ma xam ne ku ko jàpp waa jaa ngi ku bàyyi ku ko bàyyit jaa ngi ma jàpp ko moo waral bi mu génnee ci euh, PDS man tamit ma ànd ak moom fas yéene koo jàppale ngir tey jii lii mu dégg di président de la république. lan moo war a nekk taxawaayu communicateur traditionnel ci biir parti. communicateur traditionnel li taxawaayam mooy di defar ñaar ñu réeroo mu fexe ba ñu doon benn communicateur traditionnel war na taxaw fonk ki nga xamante ni mooy leader am taxaw fonk ki nga xamante ni moom la ko yàlla booleel ci anam boo xamante ni du ni alal laa koy wute ndax saa yoo jiitalee wërsëg sa sa digganteeg nit rek ànd ba du yàgg ngor la ñuy doxalee suñuy maam noonu la ñu àndee woon nag sang su baax si tey jii nit yi àdduna it noonu la ñuy àndee ñoom man Mamadou Gueye dey ci département de Tivaouane à travers région de Thiès de Sénégal loolu laa àndee ak président Macky Sall fépp fu may gis loo xamante ni luy xañ-xañ la loo xamante ni mën naa yàqal président danaa ca dox danaa ca wax ngir lan ngir bëgg ndamal président ci lu nag benn intérêt mooy tax ma jóg ca. loolu est-ce que mën nga cee jox ay exemple waaw mën naa la cee jox exemple nag ndax lu soriwul rek bu yàggul rek dal na ma Côte d'Ivoire ndax Côte d'Ivoire yàlla dogal na ci télé laay waxee yàgg na lool am ay rëq-rëq yu fa am et ki nga xamee dinaa sant gërëm le docteur Cheikh ndax moo ma fa yóbbuwaat bu dul loolu defoon naa fa vingt 26 ans chaque année dama fa daan dem waaye ren moo ma fa yóbbu bi ma demee am na médiation boo xam ne yàlla defal nañ ko fa ndam waaye nag suñu koy gërëm ñu gëmëre gërëme ki nga xamante moo nu fa yóbbu ñu la docteur Cheikh Kanté bi ñu demee ci kii nga xamante ni mooy Euh, l'ambassadeur et consul actuel et le consul bi nga xamante ni moo fa nekkoon bu njëkk ak les certains militants de la l'APR ya fa nekk ngir ñu waxtaan ak ñoom bi ñu waxtaanee ak ñoom li ma déclaré mooy man dëgg la apériste la mais makiste la avant ma doon apériste kon li nga xamante ni moom la président Macky la bëgg mooy ñu booloo nekk benn bu nu booloo nekk benn ñu xajalante xajalante gi mooy ganuk suba mooy dalal gu ngoon ci loolu la ñu président Macky Sall eh, dugale ci parti bi loolu la ñu taxawee ngir ñun les communicateurs traditionnels ngir ñu fàtte suñu intérêt taxaw li nga xamante ni mooy boole. alhamdulilah rabbi alamin maa ngi sant l' ambassadeur et le consul bi nga xamante ni actuel moo fa nekk vraiment seen taxawaay ak seen accepté. taxawaay bi nga xamante ni bi ñu ko defee ngir ñoom tamit ñu wane ni président la ñu bëgg a liggéeyal accepté nu ko ba euh, conseil euh, bi nga xamante ni moo fa jóge moom tamit ëlbatiku jox leen loxo yaakaar naa ne nit nit ñi gis nañ ko ci média yi ñu joxante loxo ngir lan ngir bëgg taxaw jàppale président de la république noonu la fa responsable yi nga xamante ni APR la ñu tamit nekkee di def bon loolu tamit la ñu def fii ci département de Tivaouane bu ñu déggee loo xamante ni lu yàq la waa département baa ñu may dégg xam nañ ni bala ñoo wax kenn parti bi nag dañ may faral di wooyee paagey dañ naan xanaa paagey yëgu ko wala paagey xanaa dem nga fee wala nangam nangam ñun loolu la ñu gëm ndax loolu la ñu suñu wayjur yare loolu la suñu maam yare suñuy wayjur mooy diggante bu ndara yàqu ñu defar ko xàmmeewuñu borom wërsëg ak ki néew wërsëg mais kiy may ndam président de la république moom la ñu xam. Euh, APR ni muy doxee fii est-ce xel xel dal na ci pour élection yi ñëw. waaw xel dal na ci bu baax a baax ndax li président de def fii ci Tivaouane. Euh, dadul lu ñuy weranteeti ndax ñëpp a ko jàkkaarloo ndax weddi gis bokku ci naam nag ci sunu biir war na noo gën a góorgóorluwaat ndax góor góorluwaat mooy ñu wacca wattandiku bu baax a baax xiiroo ak ŋaayoo daj na nag mel ni Sénégal waaye nun Tiwaawan xam nañ ni Macky Sall incha allahu taala mën na fee am quatre pour cent yu leer a leer a leer waaye nag kon waa APR war na noo wëlbatikuwaat ñu delloowaat njukkal militant yi fi nekk delloo leen jukkal ndax muy Tivaouane muy département bi Tivaouane ku ci président de la république jox ndombak tànk la tax mu jox la ko militant yee tax waaye fal la rek nga fooyu président jubluwu ci loolu bëggewu ko noonu kon nanu bàyyiwaat suñu xel yéen ñi am ndombay tànk delluwaat leen ci base bi jël militant yi jël ñi nga xamante ni tamit bëgg nañoo ñëw ñu yaatalal leen te bàyyi par parloo ak xeex ci biir ak di wane yoo xamante ni yooyu sutalul kenn kon loolu mooy li nga xamante ni moo xew fii ci département de Tivaouane moo xew feneen xew feneen waaye nag nag yuux na faa mën a jibee ba mu des Tivaouane ndax li nga xamante président de la république mi ngi ñu koy defal. nekk na. waaw cosaanu diggante murit ak tijaan fii ci Tivaouane lu rafet rek la mos a doon. ca Cheikh Ahmad Bamba ak maam El Hadj sëriñ tubaab Touba mësuta nangu ku jógee dëkk bu mu mën di doon di romb Tiwaawan li mu lay wax na nga defee ak sama mbokk mi la mu lay njëkk a wax mooy loolu mbaa jaar nga ci sama mbokk ma El malik Malick si maam El Hadj Malick noonu la demee maam El Hadj Malick seedeel na ko benn seede boo xam ne keroog ba ñu koy yóbbu ci géej gi dafa ni ndokk ñu ni ko lu tax nga naan ndokk sa mbokk mi ñu di ko yóbbu tubaab bi di ko fitnaal mu li tax ma ni ndokk damaa xam ni bu tubaab bi njëkkee woon ci moom dootul jaarati ci keneen loolu moo waral ma ni ndokk ndax xam naa ne bu jógee ci moom it dootul woote keneen kon boobu seede benn seede gënu ko rafet loolee moom la moom mooy dox jaar ki sëriñ Babacar gi jaar ci Alaaji Abdul Aziz Si dégg ngeen témoignage yi jaar ki sëriñ Mansour fii ñu nekk sëriñ si Ahmed Tidiane si yàlla na ko fi yàlla yàggal loolu te mu ànd ak wér ku ne dégg nga déclaration yi mu daan def digganteem ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daan ko def ci diggante ak yoonu murit kii fi nekk nag di al ñu koy yàlla mu yàgg fi loolu te doon nag lu mag ñi defoon lu bu mag ñi defee fukk def na junni ci rafetal wutul tariixa wutul askan wutul lenn képp ku jooytu ba ñëw ci moom mu fajal ko kon entre murit ak tijaan sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amine daf ko daf ko dàmme boole ko boole goo xamante ni yemu ci ci murit ak tijaan rek képp koo xamante ni yaa ngi wax ashadu an laa ilaha illallah ba ci ñi nga xamante ay chrétien lañu sëñ Abdul Aziz Alamin da leen di jox wàccuwaay kon loolu mooy li nga xamante ni moom la ti Tiwaawoon di dundoo ñu koy ñaanal yàlla bu baax a baax mu yàgg fi te wér quartier kër Cheikh Awa nag nag quartier murit la boo xamante ni ñoom ñoom baay <clears throat> ak ñoom maam gis nga Cheikh Mouhamadul Moustapha Bachir bi Alaaji Abdul Aziz si wàcceeb liggéey taxawaay bi mu ci taxaw bu rafet lool gis nga kii nga xamante ni moo fa nekk di maam Thierno moom Serigne Cheikh Awa Balla nga xam ne moom lañ duppee woy juróom gox ba toujours su fi ñëwee wax ju rafet ji nga xamante ni moom la ko njaboot gi seereel nga xam ne ay teraanga dana jóge fii di ko fekk si kër Seexaw Balla ñu teewe ko teewewaat ko ci mi ngi jóge si sëñ Abdoul Aziz Al mi ngi mi ngi jóge ci sëñ Maodo Touré et cetera et cetera et kon mu mel ni diggante boobu diggante bu rafet rafet rafet rafet la ba tax na bërki démboo njaay bi màggalu Touba jotee gis nga soppey Amin dañoo def ay teraanga def ko berne ngir gunge ko waa Touba ngir ñu màggali kon xam nga ni diggante bi moom yaakaar naa ni diggante bu rafet rafet la sama kàddu gu mujj nag mooy sant yàlla bu baax di leen ñaanal yàlla yàlla guddal seen fan yokk seen man yéegal seen télé bi ba mu dem ca kaw ba ni ngeen ko bëggee di leen xamal ni daal sama appel mooy en tant que ñun les communicateurs traditionnels nan leen delloosiwaat ñu xamaat suñu bopp xam ñun ñooy ñan communicateur wooye si ko jéppi communicateur du lëj li communicateur day koo xam ne dafa war a xam boppam te nee naa boo xamee ni la yàlla def nu yàlla def nit mu neex na la ngay wax ci nit mu ci lu rafet waxoo ko ngir mu jox la teraanga danga koy wax te yàlla tax waaye woo ca jubloo teraanga rek bu teraanga ja jeexee nga fi yoog moom te asgor bu démbam dafa war a firndeel ka jëfi tayam kon loolu laa ci amoon ci lu may mm, mujjee wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp nag di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may ñu fekkee déwén te déwén bu dàqal ñu ren di nag souhaité bu baax a baax bon e heureuse année ci gàmmoog ren suñu ministre suñu lideur monsieur Abdou Ndéné Sall di kenn ci département de Tivaouane di kenn ci nun di kenn ci ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaw sanni nga lëgg ca lay ba bu fekkee da nga soxla benn jikko ci Abdou Ndéné Sall laaj ko Mamadou Gueye communicateur traditionnel yaakaar naa ko ko dégg da nga ni déglu leen wax nga ma ko gore laaj nga ma ko baax la laaj nga ma koo xam ne ni ni jikko ji mel noonu la perkaal mel laaj nga ma ku jàmbaare ci président de la république ñëwul ngir dolli ko ci président de la république kii du Abdou Ndéné Sall ñëwul ngeen ne nañ ma jox ma fatoo ko ngir saa maak i bokk kii du Abdou Ndéné Sall li mu am da koy bokk ak nit ñi bëgg ndamal président de la République fekkoon ko ci situation am ko président ne jàppale ma mun ko dinaa la jàppale ci lu dul condition ba sunu joon yàlla tey wax ja mu waxoon génn ci lu mu am def na ko ci askan wi ngir ndamal président de la République kii mooy Abdou Ndéné Sall ñu koy ñaanal yàlla yokk bu wér a wér wér a wér wér ba président li mu yaakaar ci moom mu yeggale ko rawatina nag lii mu ko jox nga xam ne mooy ndamal Sénégal mooy yokkuteeg Sénégal mooy raay bi Sénégal mënut ta développé te du raay bi te raay kenn du ko jox ku nu wóoluwul raay kenn du ko jox ku nu amul xam-xam raay kenn du ko jox ku bëggul jàmm ci nit ñi moo waral mu yëkkati ko teg ko ci loxoom kon Abdou Ndéné Sall ñu ngi lay ñaanal bon sens ci lii la président de la République teg ak yokkute gu wér a wér ngeen baal maa xaw asalaamaaleykum wa rahmatullah